abi bi sifle waat na ci diggante Cobra 2 ak Tidiane Faye Baye Mbaye Fall a ngi noonu di womb Lady Tigre maa ngi seen Moustapha Gueye mu def beige bu rafet ay Père Tafa xale na léegi amaata yi sax a ngi tànk bi léegi moom Tidiane Faye xamul lam cay def xamul lam cay def xale est-ce que war ñoo jàngat bëre. war nañoo jàngat bëre gaynde gi parce que Tidiane Faye numéro 2 day jàpp tànk bi ba nga yaakaar ne combat bi dina jeex mais combat bi du jeex day mujjee bàyyiwaat. bu jàppee du xam lu mu cay xam lu muy def finition bi mooy des quoi te finition mooy léppi combat yaakaar naa ne boo ko deful rek combat bi du mën a jeex ti njool ak ndaama dañu fàttali ne ndaama li il faut combat rapproché la di bëre ak ki nga xamante ni mooy njool si sinon njoon mi day taxaw fi mu taxaw di ko fettel di ko fettel te ko mën a faj te du ci mën dara. loolu war na ci boo xoolee moom Tidiane Faye. dafa woon jege dafa woon jege Cobra 2. mais booy xool da nga xaw a sori tuuti. waaw mooy saa saa da ko woon saa bu Cobra yi ci loxo mu daw ron ko mais def ko caxabal na ko daan na ko daan na ko daan na ko daan na ko jël bu rëy bu rëy daf ko war na jëkkee bu yàgg. ni la woon def li mu mujjee moom la war na jëkkee. kontaan naa jege yow foog nga jege ko. dëgg la waay combat yi mënoon naa gaaw ñu teel fee jógee saa su numéro 2 Libido bu Passy waaw xale yi njëkk a bëre mbokk yi ñoo yàggal làmb ji moo tax combat yi yomb eh saasu saasu dóor na ko léegi ay dóor yu garaaw dóor am jom ni ko xale yi di waxee. saasu numéro 2 Libido bu Passy léegi dañuy xeex xoolal fii fàq amoon na fi. fii faaxaat amoon na fi xale daal war nañoo jàngiwaat bëre coach nuyu naa la. su ma lay maam. tey bés bi lu mu laaj. dalak tey rek. ndax démb dañoo woon poulain ñàkk ko te dañoo ñëw indiwaat beneen façon bu bees pour dal xam nga yàlla suñu borom ma ñu ndam. tey nu ngeen andee Black tey. non Black li ñu waroon ci moom lépp def na ndax dafa toog deux ans def année blanche te kooku combat tey bi nekkul combat boo xam ne tey combat bu ñu war a perte la te dañuy ñaan yàlla ñu si. pare na fi mu toll nii pare na lépp Black bés bi tey lu mu laaj. waaw li bis bi ndam rek la laaj ndam rek. est ce que xam nga li lay xaar da ngaa toog deux ans def année balance nga war a ñëw tey prouver. dëgg la dëgg la dëgg la dëgg la moo tax ndam rek ndam rek ndam rek incha allah te dina ñëw incha allah. jaajëf kontaan naa ci yow. jaajëf ñu ngi lay bëgg wér-wér. booy taw nuyu naa la. waaw ah, fay naa la. yaa ngi ci jàmm. yaa ngi jàmm bu baax. tey ñu gis nga mobiliser lii nii yëpp. waaw bés bi tey lu mu laaj. bët waaw dal dal la laaj tey def nang rek ndax man dama doon bëre am naa ci combat teg bi doon benn defet mu toog quatre ans bëréewu ma lu waral loolu. waaw xam nga rek yaa ma xam nekk yeneen affaire nekk yeneen bit rek yàlla xam nga rek yaa ma. nga nga toog bëriwul la doog bëriwul ma. maa ngi nii doog a ñëwaat dawaat retour ma ñëw def nànk ànd ak samay mbokk gars yi jàpp ma ma def nànk rek daan waay di jël bi rek tet bu leen est-ce que doo perte repère. non du ma perte repère loolu moom ma bëri sama yaram la nekk boo ma laalee boo ma nelaw boo ma laalee tax ma yeew di bëri. mais lan moo waral 4 ans yi nga toog 4 ans bëri woo lu waral loolu. waaw nekkoon ay tolof tolof rek ay jafe-jafe nekk ay xam nga mbër bu ndaw mooy loolu làmb dafa métti quoi yaa am nga xam boo daanoo ñàkk jàppale xam nga xam nga tey li lay xaar tey bés. li may tax ak li may xaar xam naa bu baax a baax. est-ce que xam nga ne ndam dong moo la. dëgg la bu baax a baax. dëgg la de. waaw ah, baax na di ko waay. incha allah amiin waay. Alioune bu Fass. Gamza bu Gamza Boy. Alioune bu Fass Gamza Boy. Alioune bu Fass mooy féete à gauche. Gamza Boy moo féete à droite. Samsu Boy Aliya bu Faas Gamsu Boy Aliya bu Faas ñoo ngi lewaatoo Faas bu booy rëbës Aliya bu Faas écurie Faas Gamsu Boy na léegi <laughs> xale yi xeex bi metti na Gamsu Boy Gamsu Boy Aliya Faas Gamsu Boy ngi dox ci kawam Gamsu Boy ngi dox ci kawam Aliya bu Faas Gamsu Boy <laughs> supporter Gamsu Boy yaa ngi yuuxu Gamsu Boy Aliya bu Faas Amzou Boy Rebeuss à droite Alia eh, xeex nañu léegi xale yi ñëw daw eh. xale yi duñ topp action doo nga eh, maa ngi nuyu Zos boom doo dooraat kenn du moom Zos du la lu toll nii Zos naa ko maa ngi nuy Garga Mbossé maa ngi nuy Tafa numéro 2. toro bi xaar kenn moom wuli wuli waat sama copain maa ngi koy nuyu El Hadj Mbaye El Hadj Mbaye nuyu naa la Gamzu Boy Aliya bu Faas Gamzu Boy daw na jël ko Aliya daw war na ko ndomba baa du ko yenu laay lay la laa Aliya Aliya takk na ko wañaar ak moom roof ko ca xabal wi laay Gamza Boy comprendre Gamza Boy comprendre daa laay li dama koy jël Adama Adama Adama Gamza Boy li bëri nii sax mënu la koo wax moom Aliya bu Faas Aliya li bëri mënu la koo wax. ñoo lay fay. mais ñu gis li nga bëre moom xale bi da koo daan jël bu rëy est xam nga loolu. waaw xam naa loolu bi nga ñun ay bërëkat lañ yàgg nañ ko fooyee nekk booy bu ndaw double moteur dañuy yóbbu si ay mbapat ay ñoom zaal bool ñuy mbapat kon c'est normal bu ñëwee fi bëre rek la ñu war a wane. waa nga ñu wax noo ko daanee. waaw dama jël tànk bi dugal bopp bëgg a def rotation pour wër ko ndomba après mu taxaw ma sigg moom door ko caxabal sama pied droit. oui. yow bëreekat nga de. waaw lu leer dafa leer rëbës lañ dëgg. amul bi mooy sama deuxième combat. ñaari victoire waa victoire. Ah. waaw bu sa kanam. waaw gars yi rek ku ñëw baax na nañ ma jox Liss Ndiago ñu ñu wane ko fii. ñeme ngaa jël na ñëw ma wane ko fii. ñeme ngaa jël avance Liss na ñëw ma wane ko fii. léegi leer na. waaw victoire bee tax nga ko dama moom na ñëw ma wane ko fii. Ah. waaw ndaanaan la gis naa ko muy bëre ndaanaan la. te man ndaanaan la kon ñaari ndaanaan dafa war a neex ay xale lañ. lamb ju neex la. waaw lu leer. jaajëf jaajëf waay. waaw maa ngi leen di fay di nuyu site bi bu baax di nuyu ñëpp. ñu gëj laa gis jéen fu mu nekk. waaye maa ngi fi rek samay entraînement xam nga di xaar ñu ngi may wax ay combat nag mais ñu ngi wax di bàyyi daal ñu ngi xaar ñu gis la depuis boobu ba léegi sa combat yaa Quench ba léegi kenn gisaatu la kenn déggu la fan yii dégg nañ la nga topp Modou anda lu waral fu combat boobu toll. waaw non topp ma ko sax gars yi ñoo ci doon wax rek boo gisee ma ci doon wax gars yi ko bëgg ma ci doon wax kese mais xam nga comme que moom muy jaay neex baa ñu baa ñu bàyyi ko mu xooli leneen ñun ñu xooli leneen rek. Ah. waaw. bu dul Modou Anta kan mooy sa adversaire potentiel. waaw ñëpp bëri nañ bëri nañ man da daanu ma farataal sax di tudd turu mbër comprendre nga. mun naa ne moo daan bi sax laa xam nga bëggoon rek affaire yi neex mooy loolu mais gars yi ku koo ci tudd làmb ji day yàqu moo tax bàyyi ñu liggéey rek daas fanaanal ku ñu war a bëree li nga ñëw ñu bëre sa combat yaa Garga 2 fuñ ci toll ndax sa combat yaa Garga 2 du ko dàq yow Garga 2 non man ci kanam laay xool Garga 2 dañ ko intérêt mu ne jën tapet la léegi moom na dem jëli gaynde mu bëre ñoom lu muy doy tapet <laughs> na dem jëli gaynde est-ce wax bu bëgg yow moo tax mu wax ah, la wax bu jën daal tapet la moom daal na dem jël gaynde yi mu bëre ñoom quoi ñun ñun taluñu wax ñun jëf la ñuy def. ñoom nañ jël wax ji rek téye ko ñun ñu liggéey. mais ko sa combat la ko téye sa combat yaa Quench ni ngeen bëree. waaw amateur doo leen xaar bëre bu neex xeex. non xeexu leen bëreewu leen. lamb moo demee noonu. lamb jamono yi ku ne xam ne dafa am waaw dafa am benn arrêt promoteur yi bari wuñu xam nga gis nga loolu ma xool 10 pour cent yi ñoo am combat naan naa ne si ñi si kaw. ñu seetlu nekkul yéen yéen a téye combat yéen a laaj kese boo xamante ni. non non de la gars yi gisul waaw xam ngeen sponsor amul pourquoi wàññiwu leen kese yi pour mën a bëre seen biir. waaye déggoo gars yi gis ñu promoteur. promoteur bu ñëw naan la na def moo fi amul. xanaa si promoteur yu bees yi comme ñoom caam gars yi xam nga ak ñi fi ne di jógoo ko daanu ak sunu sunu père yi waaw. mais ñoo ngi lay contacter. waa bu baax ñu ngi may contacter bu baax te incha am nañ yaakaar affaire yi taxaw. waaw kontaan naa ci yow. waaw ah, ñoo far yéen bëggee dund. mbokk yi abi bi sifle na ci diggante Boy Town Eumeu Badiane Boy Town Soumbédioune Eumeu Badiane Taïsinga Boy yi moo ñëwoon ginnaaw moo ngi bees bi def ci morceau bu vert Eumeu Badiane mbokk yi xool ko public bi ñoo taal téléphone yi noonu moo jaakaar ñu def ngemb lu ñuul li Boy Town door na léegi eh, <laughs> Boy Town defal ndànk Boy Town defal ndànk Eumeu Badiane daw na jël Boy Town jël bi baax na Eumeu Badiane Boy Town Boy Town Eumeu Badiane mbokk yi Boy Town Eumeu Badiane Boy Town moo ñu ginaaw ginnaaw Eumeu Badiane lañ jaakaar lool eh, Boy Town Eumeu Badiane dina lu vert li Boy Town defoon ci ngembali Boy Town ko bëgg a plaqué léegi Boy Town Eumeu Badiane mbëru Adama bi koñom aadama la dëkk ay mbëru aadama bi booy taawun ama bayaan na koy xar ama bayaan na koy xar ama ah, bayaan daan na booy taawun booy taawun bàyyi jàmbur booy taawun bàyyi càkku jàmbur bi mbëru aadama bi daanu na bas mbëru aadama bi daanu na jili <laughs> bàyyi jili mbëru aadama bi daanu na mooy noonu toog xoolal waa université ñoo ande ma bajaan noonu eh mbëru aadama bi mbëru aadama baa ngi noonu. boo ay étudiants lañu ak waa Casamance dañ maa sas li ma gis tey sama buntu kër musuma ko gis fenn ma xam ne lii daf may yóbbu fu sama yaay daf maa ñaanal sama bopp ñaanal ma ndax dañu nangu ma def li ma bëgg ndax dama ngi di ja te loolu maa ngi koy yàgg to topp. loolu na. yomb na yomb na. parce que quand a la volonté on peut on peut faire waaw maa ngi gërëm sa ñaata premier combat. Ah, kii moom moo ëpp moom a jëkk si arène bi mais affaire bi du ma moom de supporter yi laa amee la fort parce que man maa leen dégg loolu man maa leen lii sama xalaat la depuis bi ma nekkee xale daanoon naa daw jàng may dem bëre ji nee ma dinañ defi benn son nga dem jàngi nga dem kii nga dem jàngi nga bàyyi bëri wala nga dem bëri nga bàyyi man nag damay def ñaari yëpp ma ñëw tey ji maa ngi INSEPS maa ngi gërëm suñu directeur école mu Mountaga Diop di gërëm euh, suñu benn professeur bu tudd monsieur Sey di gërëm waa promo sama promo waa Kabrous waa Fune on en déjà maa ngi maa ngi gërëm waa Casamance yëpp. fay naa la. yaa ngi ci jàmm. sant yàlla am na waay. lu bés bu laaj Tigo. bis bi tey la laaj tey tey. xam nga booy Dakar. xam naa ka bu baax. xam nga dafa tege ci dynamique de victoire amagul defet. waa champion la moo tax. yow tam ku ne na ne champion nga mais lan la laaj ci ko. non man du ma champion man mbëru yàlla laa. yàlla may jàppale rek ngaa xa laa. luy loolu lan mooy mbëru yàlla. ah yàlla may jàppale xam ngeen ni booy Dakar moom. champion la man du ma champion. yàlla dafa mel ni da ngaa dafa mel ni da liw. kan. yow. dégg man du ma liw. Ah. dama am xaral quoi. oui. non man sama bagage Yeesu Kirista la waaw. njaaxu sëñ Fallou waa ngi dafa leer amul luñ ciy nëbbu. waaw. lii da ngay na dul suivre lamb boo doon suivre lamb lii c'est le retour de lii ba may doog a commencé lii laa ñëwee woon suñu Tigo bee ngi. man maa ngi ko doon bëgg a laaj. c'est le retour de Tigo. mais ñoo dundee tey lamb ji ak koor bi. ah sant yàlla rek parce que dimanche la tombel bu tombalee beneen jour moom bokkuma ci bëréew ma mais ñun dimanche jour du seigneur la bisu yàlla suñu borom la ah, bisu feet la bisu mbégte la. da ngeen da ngeen da ngeen pause quoi. waaw du poser ñun dimanche c' est le c' est le jour du maanaam bisu feet la bis la boo xam ne Yeesu Krista moom moom moo tax ñu xumbal bis boobu noonu. xam nga bis la boo xam ne bokkul suñu koor parce que c' est le jour du seigneur bis la boo xam ne dañoo war a xumbal baatu yàlla waaw def ko ci euh, ci ci jàmm ak salaam. moo tax bokk si koor gi mais. du nga wàccee ba tey kon daa mel ni bonus waa tey bonus lay doon dañ koy ubbee koor gi rek. Ah. dañuy ñaan yàlla suñu borom. ci ah, barke weer koor bu sedd bi en union avec tous les saints ah, yàlla may ñu ndam ci barke Yesu Christa waaw di ñaan yàlla suñu borom ci barke sëñ Fall mi nga xam ne dama koo bëgg te sopp ko sëñ Mansour tamit yàlla na ma yàlla suturaal may ma ndam ci kawam. du courage. jaajëf merci. boo da ngaa nuyu yaa am jàmm alhamdulilah. waajee tey bés bi bésu tey lu mu laaj. waaw bés bi di waaj comme yeneen combat yi ñu koy waajee waaw. dama jógee léegi Tigo nee na moom mooy mbëru yàlla. moom mooy. moom mooy mbëru na yow la am muy Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. <laughs> te nee na tey ci ci fête la tombeel. waaw ndax ñoom dañoo nekk ci koor. waaw la combat bi combat bu yomb lay ne. ah combat bu yomb dana ko waaw combat boobu noonu du combat ma gis nga nga mobiliser ànd public bu doy waar. lu waral loolu. dañ waaw gars yi ma yëg leen jox leen lu ñu moom ñu delloo ma lii tey loolu la rek ma nekk si ñoom ñu yar ma ba ma màgg toll nii kon donc lii rek lañ ma mën a xam nga lañ ma mun a defal ma ma mën a bëgg quoi waaw. combat bi yaakaar nga ne dina gaaw. incha allah waaw. xeex lay jeexee wala bëre. ragal naa mu doon xeex de. wala bëre daal maximum suy jeex daal su taxawee su taxawee su taxawee rek lay jeex vite fait. ñëw nga xeex ak Tigo. man. xanaa seetaanoo samay combat. non dama ne Tigo laa wax ma man de. déggoo ma samay combat. non man Tigo laa wax. déggoo ma xanaa waaw ñooñu jàll na xanaa seetaanoo ko. man du ma est-ce que ñeme nga xeexal Tigo. pourquoi pas Tigo maa ngi daa xeex. yaa daa xeex Tigo. lan la fi xeex depuis mu commencé bëri kan la xeex kan la dóor gi. ñu bi bi bi mu dalee bëri ba léegi li mu andi tey bi mu doog a dugg si làmb loolu la andi. nee boo xoolee wetu wat bi sax wat bi. waaw mooy wane loolu. waaw loolu yëpp dëgg la mais Tigo est-ce gis nga fu mu xeexee si làmb non man yow laay laaj man waxuma man de man maa la laaj yow. maa dama laa laaj ndax yow gis fu mu xeexee si. waaw gis naa mu daanu fii wala kan la yóbbu ardo. waaye xeex na fi. xeexu fi. kan man dóor naa nit yóbbu ko ardo te moom musul dóor nit yóbbu ko ardo. mais am incha allah. Bissau huitième combat de la soirée. lamb ju neex. combat bi du yàgg. Bouba yëmbal marin. Boy Bissau Tivaouane Peulh Bouba Boy Bissau ñoo ngi lewaatoo Bouba door na léegi la waaye dalul Boy Bissau moo féete à gauche Bouba à droite Boy Bissau Bouba Bouba jokkaas na léegi Bouba cokaas na léegi Boy Wissal daw na jël ko moom Bouba waaye jël bi daa sori eh, atul atul Boy Wissal woo oh, yow Bouba xale yaa ngi xeex eh, Bouba Boy Wissal woo oh. xale yaa yuuxu làmb ju neex laay làmb ngoog Bouba Boy Wissal woo oh. waaw daf may fàttali petit buuda buuba ak boy bisaawo buuba yëmbal marin boy bisaawo ci waawoon pël buuba moo ñu woon ginnaaw booy xool mbokk moo xaw sut tuuti boy bisaawo moo xaw a tuuti booy xool moo mel ni ko xaw a ëpp tuuti laf da koy dóor mu saabu bu baax dóoree bu booy booy booy booy bi saawoo ñooy xeex daw na jël tànk ba baadu ko daan baadu ko daan daan na ko bu baax bu daan na ko eh, kii lu muy def nii entraîneur bi lu muy def nii entraîneur bi lu muy def nii bu ah, baax daan na booy bi saawoo bu baax mbokk yi noonu ñu tuddee ko drapeau Pape Modou ayta écurie Diop Sogo nekk euh, Boy Niang bu Malika écurie Malika mbooloo xayta Diop Sogo nekk xayta turam boo demee sama dëkk lañ ko fay woowee neexul boo ko waxee xale mu ne la accam xayta <laughs> ngoog écurie Diop Sogo nekk Boy Niang Malika Mbolo Boy Niang moo ñu ginnaaw xayta lañ jàkkaar lool xayta mbokk yi booy xool moo takk moso bu weex bi ci bopp bi takk dàkkal gi ci ci dënn bi xayta ngi dox di wut ci Boy Niang bu Malika vite fait bien fait xayta Boy Niang xayta cokaas na léegi xayta cokaas na Boy Niang Boy Niang door na laaw gauche droite waaye dalul Eh, xayta jàppante bi la bëgg booy ñaa boo xamoon xayta booy ñaa boo xamoon xayta ay booy ñaa booy ñaa yëmbal mbooloo xayta jëf soog a nekk eh, booy ñaa doon na ko léegi góos bu dal la remise ko moom xayta booy ñaa boo xamoon xayta di ko def ndànk li mu wootu dëgg ci moom bëre la bëgg booy ñaa xayta xayta daw na jàpp ko dóor na ko léegi droit bu dal eh, bal doomu daal ci am ba doomu daan du ci am ba doomu daan du ci am oh ko xayta da ngaa doota xayta doomi da yootu xayta booy ñaa xayta booy ñaa waa kii lu muy def nii kii xanaa yëgul li xew def nii booy ñaa booy daan na xayta da koo dóor da kaawu Boy Niang daan na xayta lay cee ji Tigo bu xefee ma doo ko mu daanu moom mosul doo mu daanu abit baa ngi wax ak ñoom mbokk yi li làmb nangu ak li làmb bañ Boy Dakar moo ñu wan ginnaaw yi abit baa nga jox avertissement moom Boy Dakar nee na lu mu sotti Tigo abit baa ngeen wax li làmb nangu ak li làmb bañ abi baa ngi wax ak ñaari mbër Adama grand combat baa ngi noonu eh Adama ba fàtte woo gàmmu waalo bi Adama ba fàtte baa ngi noonu abit baa ngi wax ñoom moo ngi laaj ba pare nga Djibson production woo ñu fii 1er mars il est 20 h Boy Dakar Tigo Boy Dakar cokkaas na léegi Boy Dakar Tigo laay leen laa ñoo ngi fi arène nationale Djibson production moo ñu fi woo 1 mars il est 20h arbitre bi sifflé na Boy Dakar moo ñu woon ginnaaw tent bopp bi Tigo xaytu yaayam lañ jàkkaarloo moo takk fas bi ci bopp bi Boy Dakar Tigo Tigo moo ngi demee wet Tigo ngi demee wet Boy Dakar ne teg topp ko moom Boy Dakar teg pied droite Tigo xaytu yaayam teg pied gauche ñoo ngi lewaatoo ñoom ñaar Boy Dakar Tigo ragal naa ni combat bi du yàgg. ragal naa ni combat bi du yàgg Boy Dakar Tigo Boy Dakar Tigo Fatima noo gisee laamu ji. waaw Ousseyn maa ngi lay nuyu ah di bëggee ñi nga ñoom ñoo ñuy seetaan suñu wasaare ah ñaari non ñaari combat yi boo gisee kii di Boy bërekat la dafa mën a bëre mais Tigo xaritu yaayam bëreem dafa assuré bëre bu assuré la yor mais kii moom macha allah. booy Dakar lu leer koy tax a def. parce que booy Dakar instant bi neuf combat la def neuf victoire amagul defet te bii mooy premier grand combat am kii Tigo xaritu yaayam su ma juumul bi mooy quatrième grand combat am kon nga xam ni expérience bi Tigo xaritu yaayam ci la nekk mais booy Dakar xale bu mën bëre la nañ ko bàyyi xel. kontaan naa ci yow Fatima. boo moom moom moom Fatima mooy borom info réew mi booy Dakar ci koo xaytu yaayam ñoo ngi lewaatoo ñoom ñaar booy Dakar ci koo dégg nga Fatima ni mu ko waxee ne expérience bi ci Tigo la nekk Tigo booy Dakar moo taxit moom Tigo moo ngi ne tekk di ko xool booy Dakar gi jàkkaarloog moom ñoo ngi lewaatoo mbokk yi ñoom ñaar ah làmb ji. ragal naa bu jàppantee mu jeex ah dagg na Leewtoo bi Tigo dagg na Leewtoo bi Tigo Boy Dakar Tigo ba koy dem gauche ba mu neex ko mu dem droite Tigo Boy Dakar ñoo ngi lewaatoo loxo jógagul congo amagul tapalantooguñu làmb jaa ngi noonu maa ngi nuyu sama sama naataango bi sama waa ji siyaar naa la moo ngi foofu ca baat ni moom bàyyi ji la abit bi àtte na combat bi nee leen ci diggi géew bi Boy Dakar Tigo Boy Dakar Tigo abit baa ngi wax ak ñoom nee leen moo ngi wax ñoom naa leen bërewu leen bëre leen làmb noonu abit baa ngi laaj ay jugeem laaj na ñaari mbëri sifle na Boy Dakar Tigo ah doo Boy Dakar door na léegi waaye dalul Boy Dakar Tigo Tigo boo xool dafa mel ku ko libéré combat bi Tigo cokkaas na léegi Tigo cokkaas na léegi ñu fàttali mbokk yi Tigo boo ci feet bi sama njaago noonu Tigo xaytu yaayam boo xool taxawaayu ñoom ñaar xaw nañu tolloo. boo doon xoolee rek bu ñu sumee ko nga xam ne ñii liggéey nañ tey booy Dakar Tigo xaritu yaayam ah Tigo cokkaas na léegi waaye dalul Tigo cokkaas na léegi moo ngi demee nday joor moom Tigo booy Dakar rek ne tekk top ko booy Dakar nag boo xoolee dafa dafa lisu ci combat bi moo ngi taxaw di ko xool jàkkaarloog moom tànk bu mu teggi moom Tigo xaritu yaayam booy Dakar teg fa tànkam booy Dakar Tigo <laughs> ragal naa ne bu coow nga ragal naa ne bu coog amee ci làmb ji Boy Dakar Tigo Tigo daa mel ni ku bëgg a dem Tigo daa mel ni ku bëgg dem cokkaas na léegi moom Tigo Tigo Boy Dakar Tigo demee na càmmoñ de lootoo ba mu neexoo mu dagg lootoo bi moom Tigo Tigo Boy Dakar Tigo Boy Dakar Tigo expérience la koy jaay boo xoolee làmb ji mbokk yi Boy Dakar concentré woon ci làmb ji mais da koy Tigo da koy bàyyi ba mu léwtoo samp tànkam Tigo dagg léwtoo bi demee gauche wala mu demee droite pour déconcentré wu ko doo ko andiwaat ci làmb ji moom Tigo xaytu yaayam Tigo Boy Dakar ñoo ngi lewaatoo ñoom ñaar Tigo Boy Dakar Arène Nationale Production woo ñu fii tey abi bi àtte leen jox avertissement ba du leen jox avertissement jox na ko avertissement moom Boy Dakar ah, yaay bañ nañ jox na avertissement Tigo bëre wuñ baa ngi laaj ay jugeem laaj na ñaari mbër abi bi sufle na Tigo lu muy def nii ah, au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit loolu la def léegi Tigo loolu la def léegi Tigo xaritu yaayam ak Boy Dakar ñoo ngi lewaatoo ñoom ñaar Tigo Boy Dakar Tigo Boy Dakar ñoo ngi lewaatoo ñoom ñaar Tigo Boy Dakar jege yaantoo nañu jege yaantoo ragal naa dinañ jàppante ñoom ñaar Tigo ngi lewtoo Tigo Boy Dakar eh Boy Dakar cokkaas na léegi. yëkkati ko remise ko cokkaat na léegi moom Boy Dakar moo ngi koy accéléré Boy Dakar accéléré Tigo sàmmal <laughs> ma sa tànk yi sàmmal ma sa tànk yi waxoon naa ko sa baadu ko faaxat baadu ko faaxat Tigo lu muy def nii Boy Dakar Tigo eh, xale yaa ngi bëre laay laay la laa <laughs> Tigo daw na jël ko Boy Dakar daw na jël Tigo Tigo rasu rasu rasu bu amul fenn daw faax ko jàppante nañ Tigo di wolu sew ci suuf Tigo ngi dugal ay boni sookas Tigo ngi noonu Tigo booy Dakar baa ko faax moom Tigo baa du ko faax booy xool mbokk yi Tigo jàppul booy Dakar ngi rokko ci suuf ku nekk sa benn loxo am na ngemb Tigo am na benn loxo ci ngemb booy Dakar loxo ci ngemb ñoo ngi jàppante ñoom ñaar eh, su li na fi bu ma gisee lii sama xel dem ci Pape Mor dafa na ko laa génnee laay lay la laa ey eh, lu ne am na fa stade Iba Mar lu ne am na fa jàppante nañ bàyyante waat Boy Dakar Tigo xaytu yaayam eh, lamb ji neex na Boy Dakar Tigo lamb ji mënu yomb ay xale lañ abid atana Ardo Boy Dakar dem na Ardo Boy Dakar dem na Ardo demal Boy Dakar bul demal jàmbaar yàggee na loolu moom booy Dakar sànq waxoon na ma ko nee na ma Tigo musul doo kenn mu daan te man yóbbu naa nit ardo Boy Dakar a ngi noonu. Boy Dakar Tigo Boy Dakar moo ñëwoon ginnaaw Tigo lañ jàkkaar lool Adama lamb ji neex na Djibson production moo fi woo tey ñoo ngi fii ci arène nationale ci Tigo yaayam mi temps li lamb nangu ak li lamb bañ abi baa ngi laaj ay jugeem xoolal ma Tigo xoolal la muy def au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit à moi-même <laughs> Tigo woo ngoog Tigo xaaju ak Boy Dakar ñoo ngi Djiko booy xool moo wan ginnaaw léegi moo xaw ñuul booy Dakar moom lañ jàkkaar lool moo mel ne ku tent bopp bi moom Djiko moom booy Dakar Djiko cokaas na léegi waaye dalul Djiko booy Dakar booy Dakar sëqatal na production moo ñu fi woo tey booy Dakar Djiko grand combat baa yi noonu bëri na 10 minutes ba mi-temps il est 20 heures 42 21 heures moins Boy Dakar Tigo Boy Dakar Tigo ñoo ngi liwaatoo ñoom ñaar Tigo Boy Dakar sànni na waaye dalul. waaw ah, Tigo dóor na léegi eh, Boy Dakar jël na tànk ba fam ko jàpp sori na moom Boy Dakar baadu eh Tigo Tigo li nga may daa ëpp Boy Dakar Tigo lii lan la lii lan la wër na ko gàtt appui daan na ko daan na Boy Dakar daan na Boy Dakar daan na Boy Dakar daan na Tigo. Boy Dakar daan na Tigo Boy Dakar daan na Tigo Boy de lu am. maa ne Chine am na. Boy Dakar daan na Tigo. daan ko. jël bu leer xel xamu Boy Dakar daan na Tigo. Boy Dakar daan na Tigo. Boy Dakar daan na Tigo. Boy Dakar daan na